seti yan fane ala ima suñang na terefu na khalifa fane haysa wa gara jogan red a beru me anone maga fa mo beru jogana inno ngra terudi wene gane yay mak mo sugen taro nanne wede gor mak mak wene tamidam bo bokten e yantere do suñu maxe ha illa hidam te badi fajam ya aliano de jogu hiwal hidam ke def apetona sate fane na barke la ilaha illallah yo merci yo wonde wiyake ɗen ɗi wonde wiyake wonde wiyake wonde wiyake wonde wiyake ɗen fof ɗum wiyake yo Darula e eh, kare mo CFA Abdoulaye dere sikrune kare mo se kare mo e wop صلي على محمد أصلي Sidi Ousmane <laughs> on sa sar sar sar ma resala fayin ke reti dakin kadem alema yifu mandal bo lamatulero le manga wala nga gara koy sikri na mbeto m e t o w a t was 남자 예? 그럼 다음에 Chỗ nào biết? Quá thôi ra mất. Chỗ mới chỉ. Nếu tôi để con cái gari đã. Gari đã. Quá sao? Cái gari đã. Sebelum mana mana yo? Mak. Ah ah. ah. Mana yamate yamate liɓke ndaf ke ɗaf ne ta liɓke ta liɓka gari gari mor mor Baru pemiluan. Oh, eh, eh, eh. Ano Alé Diop bés bi yow yaa ko moom. Iya. Siar yang mana? muda. Apa lewat? dia ini dia صل على محمد الرسول وعلي وصحبه Yeah.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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهدها الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا بوكي yi gannaaw ko ñu sante julli ci yonent bi sallallahu Alaihi Wasallam. ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp ci jotaay di beral nuyo kilifa yi nga xamne ne ñoo jóge ba Sirman di njaboot Cheikh al Islam Al Hadj mam Ansu Ñang ataalallahu baqa'ahu fina di beral nuyoo kilifa yi nga xam ne ñoo jógee ba Dakar ñoom ñëpp insha allahu dinañ leen présenter bu ñuy commencer joxe kàddu yi insha allahu rabbi kon gannaaw bu ñu nuyoo mboolem yëpp. ku ci nekk ñu sañoon ñu jaar sa tur wala ñu jaar sa tur iliman mais comme temps bi def ñu xooj du ñu def dara lu dul ñu wax leen programme mu war a tëddee incha allah rabbi ñu soog a dugg ci liggéey bi. بالله من الشيطان الرجيم الله العظيم الفاتحة أستاذ ki nga xam ne moo ànd ak ONG bi nga xam ne ñoom ñoo finance juma bi di Aliou Tine moom tamit mu yëkkati ay kaddu ñaanal mbooloo mi ñaa ñaax mbooloo mi tamit parce que lii ñu ñuy financé ni sas la si ñun te la tabaxal juma daf la sas ci jaamu yàlla kon oustaz Aliou Tine bismillahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين مكي من لندي نيو نيو الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع يرمندم أكبركم يلنا كواتي تكيب نكتين nuyoo boobu ñu ngi ci jiital kilifa yu màgg yi teew ci jotaay bi Cheikh Ahmad Tidiane Alxaaji Moustapha Niang ak mboolem kilifa ak notable yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wàcce seen wàccuwaay di nuyu chef de village ak imam ak ñi fi teewal maire bi maire bi ak sous-préfecture ñu ngi leen di nuyu ñëpp di nuyu mboolem ku teew ci jataay bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ñëpp jàmm defal ñëpp tawfiq euh, Oustaz Bouba Sarr mi doon wax léegi daanaka fi mu tàmbalee woon foofu laay tàmbalee mooy di ñaanal yàlla suñu mbokk suñu xarit suñu wollare al Oustaz Arfan yàlla jégal ko yërëm ko te yëkkate ay darajaam te barzax te barkeelal ko njabootam ak li mu bàyyi gannaawam ak oustaz yàlla daf ñu boole woon ci diine ñu xamante woon ci diine ci diine ba yàlla dimbali ñu ñu sos benn association bi nga xam ne moom la ñuy tuddee jamiatu rihab li tanmiyati al bachariya association al rihab pour le développement humain doon ci liggéey mu nekkoon suñu jumtukaay bi ñuy jëfandikoo ci liggéey ci ci diine waaye ci àdduna ndax diine ak àdduna ñoo ànd amoon suñu ay relation suñuy partenaire di jokkoo ak ñoom ñu liggéey ci jàng ak jàngale ak lépp loo xam ne nii day suqali doomu adama waaye ci luy jëmmal diine ji di ko yombali ni muy tabax ay jàkka ak lépp luy defar nekkinu doomu adama ci wàllu ndox ak yi nga xam ne mooy yu demee noonu yàlla dimbali woon ñu nekkoon ci loolu doon ci liggéey euh, fu nekk ci Sénégal ñu àgg fa walla ñu euh, yónnee fa te dëkk yi comme ni ko buuba waxee lu bari li nga xam ne agsi na fi ci turu Oustaz Arfane lu ci bari ci turu association boobu ci lañu ko jaare bu am suñuy partenaire ñu may ñu ñu mën a euh, jot ci loolu boo am ni ko fii ak feneen loolu ay jéego yoo xam ne ñu ngi ko doon def yàlla def li ko neex li gën moom mooy mu yóbbu ko ñun ñu des fi wala mu bàyyee ne mu bàyyi ndeegun ñu fi ñu nekk fi ci gannaawam Euh, di ñaan yàlla mi nga xam ne moo tànn loolu def loolu mu nekk li ko deex mu may ñu mën a mottal li nga xam ne moom mooy kollëre gi ñu seqoon te kollëre googu moom mooy képp ku nekkoon nitu arfan képp ku nekkoon soppee arfan képp ku xamoon ak euh, xamante woon ak arfan fas yéene jokkoo ak yow fa nga xam ne wala na nga xam ne na nga doon jokkoo ak arfan ñu am yéene di jokkoo ak yow noonu ngir kollëre googu lépp loo xam ne nii ñu ko doon def ak moom ba muy teew di mon ndax fii ma taxaw tey bu fekkoon yàlla bàyyi na ko fi mu nekk ak wér tal moom moo fiy taxaw kon yàlla def na nekku fi ñun ci kollëre gi nga xam ne moom la ñu seqoon dañu jàpp ne wareef la ci ñun ñu taxaw fii wax ci turam waaye ñu jokk li nga xam ne moom mooy la mu doon jokk ci ba mu fi nekkee ci kàddu yooyu ci la ñuy waxe muy association Ar-Rihab pour le développement humain bi nga xam ne moo nekkoon suñuy tànk suñuy loxo ñu daan ci jokko ak képp ku ñuy jokkoo te ñu bëri ci yenn dégg tur boobu ci ci moom yàlla def ñi nga xam ne ñoo andi ji ñu suñuy partenaires ñi nga xam ne wax nañu leen muy alaata ñi nga xam ne ñu ngi fi ñoom du ñàkk danañu jël kaddu wax ci seen tur waaye ñun ci tur association Ar-Rihab boobu ci la ñuy wax bu ko defee di leen talalaat loxo di leen wax ne li nga xam ne moom mooy kollare ga ñu seqoon ak moom ci lañuy ñuy di dox seq ko ak yeen ak ñeneen ak ñeneen di ñaan yalla yalla subhanahu wa taala yombalal ñu lolu ay di sàkku ci ya, ci yeen ñaan ngeen ñaanal ñu yalla may ñu ñu mëna motli mottali kollare gi nga xamne mo doxon suñu digënté comme ni ngeen ko waxee kaddu yi du mëna a gudd ndax ta bi dafa gàtt lool rek lañu ñu bëggoon jàllale di nuyuwaat kalifa yi nuyuwaat képp ku fi tew di ñaan yalla subhanahu wa taala mu nek jotaay bi nek jotaay yiw jotaay yu barke wa yalla sam ñu aar ñu wat ñu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 ونصلي على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أيها الأحباب الكرام الجمع الكريم السادة الأئمة والمشايخ وإمام المسجد الراتب والنائب لرئيس البلدية والعمدة والإخوة الوفد المصاحب من جمعية العطاء الخيرية والسادة الأفاضل ممثلي جمعية الرحاب

tambalé ko ci sëriñ yi fi ne ki représenté monsieur le maire ak monsieur le sous-préfet imaamu dëkk bi borom dëkk bi délégation bi mu àndal mom ci wa APA délégation bi mu àndal ci wa Rihab ak ñeneen ñi xam ñëpp ñëw nañ fekk jotaay عباد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن السفر قطعة من العذاب قطعة من الألم والله هذه المسافة التي قطعناها بمجرد ما رأينا هذا الاستقبال الذي لم أشهد مثله في حياتي زال هذا التعب وتحول إلى شحنة إيمانية لم أستشعر مثلها قط doggit na ci mbugal mu ne distance bi ñu def ak fi ñu jaar yi béeg si nekkoon na coono waaye coono boobu dañ na bi mu séentoo seeni mbooloo mi taxaw ci kee bi di ñu gàttandu mu ne musul gis loolu ci dundam li mu yëg charge bi mu ñëwee gis lii mu ne moom ak yàlla kese ko xam te musu koo dund mune nek na ci wote lu ñeen fukki at waye limu yek tay tey yek yek yek bu melni mune kon nak ñun dañu ñëw tay pour dolle ko ci yéen ndax xam na ne li leen génne du dara dara dara lu l'islam ndax amul mbokk amul leneen l'islam kesse kesse mo leen genn mune lolu loolu nako trop أيها الأحباب الكرام كان عندي اليوم ارتباطات كثيرة من أعمال وغيره ولكن عندما أخبرني الإخوة في العطاء أننا سنذهب إلى جزيرة الشيخ عرفان لنفتتح المسجد الذي كان سببا في بنائه ألغيت كل ما عندي وجئت تلبية للعاطفة التي كانت بيني وبين الشيخ عرفان فمنذ وصلت السنغال وأنا أعرف هذا الرجل وأحببته حبا كثيرا وأنا لا أفهم كيف كنتم تتعاملون مع هذا الرجل كيف أنه ولد معكم وتربى معكم كيف هذه العاطفة بينكم وبينه هذا الرجل رضي الله عنه فهو في دار الحق الآن نسأل الله عز وجل أن يقع كل ما قمنا به كل من سيصلي في هذا المكان ركعة سيقع هذا في عمل عرفان كل إنسان استفاد مما قدمه عرفان سيقع هذا الأجر عند عرفان بإذن الله سبحانه وتعالى فهو ولي ذلك والقادر عليه من آه، موم أمون نكلان ري بشرد واي بيكو وا عطا نيغا خامني ньо ورا ньо اندي جري بين كاني فاني ديم دي اندي جري جي جمعه mooy il boobu nga xam ne Oustaz Fane mooy sababu jumaa ba dem fa mu ne dafa am leneen lu mu yëg mu ne leen dinaa ànd ak yéen moo tax mu ñëw ànd ak ñoom mu ne Oustaz Arfan fi nga xam ne fii la bokk ci biir ay mbokkam moom di leen di laaj lan ngeen doo jëflante ak moom ban sentiment moo doxoon seen diggante ak moom mu ne moom dépp bu yëg si fii ci Sénégal daf koo xam jëflante ak moom gis ci moom lu bëree bëri am sentiment bu xóot bu nekk digganteem ak moom moo tax lépp loo xam ne daf ko yëkkati moom def ciy taxaw beneen bi mooy lii jeexitalu liggéeyu arfaan ñëw biñ fi ñëw jotaay bi jumaa ji mu ne lii yëpp bépp rakk buñ fi julli incha allah arfaan dina am ci yi yàlla soo taala gërëm mu ci këru dëgg ñu ngi fii waaye ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa yàlla soo taala nangul ko lam ndax ci hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ne man yuraa i yuraa illah bi man yu sàmmi yu sàmmi am ngistal def def lu wax wax lu nee na jëriñu dara nit ki beneen hadis firi ko ci hadisul kursi mm-hmm. jalla jalaalu di wax ci hadisul kursi لأن أغنى الأغنياء من الشرك لأن لب لو خمنتني بولين ما بولين نعم ما شيء أكينين من يلا صخلاتنا تلو لنا اللي فيهم مم يلا فيهم لأن من عاملة كيف كو خمنتني جفنا تمن يلا تخوما بيوم القيامة تجت من لا دمال تكتهم لي جف تيوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ 嗯哼。 bu doon nit moo tax ngay def wala ngay wax bu yowmal qiyaamati jotee perte alquran ñëw déggal ko ne hal ataa ñëw na ci sa xel bàyyi nga xel xadiisul xaasiyati lay xewi keroog bés ba nga xamante ne njàqare dana am ñu mu dab gàcc dana am ñu mu jàpp wujuhun yawma idin xaasiya nee na keroog da gis ñu rus ñu rus la lan moo tax amilatun naasira liggéey na ba bëgg a dee waaye jëlewu ci dara te loolu moom nit ñi di jël ay saaku sukkar di wàccee ci tefes bi di dugal seen kër yow nga jël sa saaku sotti ci suuf ba mu fees yenn ko di dugal sa kër na dugal danañ wax ne dugal na saaku waaye kafaaku boobu noonu da nga ko yëg lii mooy ngay dund ci àdduna di jëf wala ngay wax te yàlla tax ba tax mu ne ko hal attaque est ce que ba nit ku nekk nag yow lay waxal bàyyi ci xel moo tax loolu taxu ñu jóg li ñu tax a jóg mooy jox ci bokk defar bokk góor gi wax na ko léegi imam sharif yi moom la ñu am Cheikh Sadi suñu maam Cheikh Ousmane Diouf ci kër Cheikh Sadi mu la jàng wala xam na bekkoo ku gërëm ko foo nattoon ci xam-xam yëgg na ko boo xoolee kasida mi nga xam ko doomam muy Seeku Diouf Ibnu Arabi moo ko jàng mooy sirif nit xam nañ ko shérif mii noon na fii ndangaan di wax séeréer di wax soose di wax arab shérif la kon shirif yi amuñ ci ñom lu dul ñu sopp hmm. alquran wax ne qul la asalukum alayhi ajra illa al mawadda fi l na ngeen ma soppal sama njaboot kon goor bi amul ku ko gëna sopp yonente bi ak njabootam ci lool lañu yar shirif yi li ñu am ci ñom moy sopp leen leen ndax alquran bi ñuy jang ak li nga xam moy pratique islam ci ñom la jaar yonte bi alayhi salatu wassalam digal ñu ne ma in tamassaktum bihima moy ñaar ñii daraktu fikum sakale ñaar ñu dis la fi bay dara man dara mënu ko bur moy kitabullah alquran laa yaqtil batil bayni yadi wala min xalfi ñaarel ba mu ne wa'itrati moy sama njabot la yaftariqani ñom ñaar duñu tekkale ko xataa yarida al janna ah, al al al xaw dekero ba ñu teew ci kaw kaw sax kon ñun lépp lu ñu téye ci ñoom la jóge kon ñun amuñu lu dul njabootu yonente bi ni ko imaam am waxe ñun ñëpp ñun ci gannaaw njabootu yonente bi sallallahu alayhi nag moo ñu tax góor gi junj na ko léegi al axlaaq fii buyutin adina llaahu an yàlla bi mu bindee nit ki daf koo composé ci ñaar mooy ruuxu wal jism mooy ruuxu bi di dundal nit ki ak li ñuy tuddee jëmm ci xel mi nag di leen di composé ñoom xel mi moom mooy jàppale jëmm ji ba lekk ak naan ak sëy ndax yooyu mooy dundal yaramu nit mu xam nu mu koy contrôler waaye xel moomu itam mooy wolbateku du contrôler nit ki ci diine te mooy jumaa ji yonte ba mu ñëwee lan la njëkk a def ca Madina mooy tabax jumaa ji Seydina aadama ba mu wàccee ci kaw suuf lan la njëkk a def tabax kaaba ji awala baytin wudiya linnaas bi bakkata mubaaraka foo dem nag da ngay fekk ñoom yu yàlla foo dem jëmm ji nag diir bi mu fi am yàggul moo tax mën ngaa contrôle ak xel mi yi koy dundal waaye bu mu tax nag nga sàggane la tuddee ruuxu ndax yow mii toppatoo sa jëmm ni ko woykat ba wax fa anta bir ruuxi yaa xaadimal jismi kam tashka fi xidmatihi fa anta bir ruuxi laa bir jismi nee na jëmm ji jox ko li moom waaye bu mu la yàqal nag ruux bi li mu moom ndax yàlla dafa bind ñeent yooyu duñ jeexati duñ fi mas a jógee ba mu bindee aljanna aljanna du jeex ba mu bindee safara safara du jeex ba mu bindee arash ruuxu ruuxu du mas jeex moo tax dafay tox alay salaatu wasalaam alay salaatu wasalaam kero ba muy faatu dafa ne ar rafiq damay toxu dem feneen kon jëmm ji moom la ñuy jël yemale ko fi waaye ruuxu bi moom dem na ca kon ruuxu boobu fii lañ koy defar mooy jumaa nit ku nekk nag nga war ci bàyyi xel defal ko ci imam Cissé waxoon na ko ca ba ñuy ubbi jumaa ju njëkk saxaaba yi la taxoon ñu bëggante yéene wante ba yàlla tàgg leen wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kaana bihim xasaasa la ko waraloon juma moo leen boole woon juma li muy njëkk defar ci yow mooy ñetti dana wàññi dindi ci yow rëy ndax ñetti bakkaar moo sànq nit rëy ak kañaan ak bugge juma li muy def ci nit ki nag mooy génne loolu dugal fa safaan mooy la nga xamante ne mooy lu baax mu génne kibru te mooy rëy alayhi salaatu wasalaam ne rëy ci ku mu nekk lu mu tuuti tuuti aljana doo fa dugg kon waru faa ne rëy bés boo ñëwee ba kabar rukkoo sujuud ba nga sujuudee waroo jogaale ak la tuddee rëy ndax loolu la lay jàngal wañ wàccee sa bopp man tawaada lillah rafaahu wa tax tawaadu tuddee kañaan nangu dogal ak yàlla xam ne yàllaay dogal boo yegsee ci jumaa ji summi say dàll ak say yére sa yére bi nga sol dugg ci biir say dàll nga teg ku ñëw jàkkaarloog moom kon nga xamante ne yàlla dafa bari ne muy bindee muy tege kenn ku ci nekk ak la yàlla bind ci moo tax kay añaan xeex xeexul ak kenn ku dul yàlla ndax yàllaa dogal ne lii la nga ne yow yàlla li nga dogal dogal nangu mm-hmm. te mooy nga seet nit xool ko ne li nekk ci yow wala li nga am man d'accord te danaa fexe ba mu dégg ndax loolu mooy ko mm-hmm. te danaa fexe ba mu dégg danaa ci wax danaa ci def loolu lay dindi ci mm-hmm. bugge bugge loo gis bugg boo jàkkaarloog jumaa loo fay fekk loo fay gis mu wóor la ne ak loo manti am bés a ngi ñëw ci buntu jumaa ji danañ la fa teg nga war a jàkkaarloog sa borom kon est-ce bar na jar na bagage yu bëri na ngay amee nga war ci bàyyi xel la nga am nga war a bàyyi xel fan koy dugal gis nga jumaa bu génnee ci yow yii continuel la bu feebaru xol yëpp jeex bu boobaa yaa ngi julli waaye su fekkee ne nag jumaa dindiwul yii ci yow kon xoolaatal sa bopp moo tax abu xanifa taalibam bi ñu tuddee alqaadi abu yusuf qaadil xudaat ba ñu ñëwee ci maaruful karxiir laaj ko naka la ñuy jullee mu wax ko na jullee ba pare ne boo jàkkaarloog ni allahu akbar nee na yàllaa ngi nii safaraa ngi nii aljanaa ngi nii ku yëg ne safaraa ngi nii ci wetam yàllaa ngi nii ci kanamam na muy mel wóor ko ne ko aljana mu ngi nii na muy mel ba mu waxee bay yëggali ca sëlmal ba keroog ba nga xamante ne danañu sëlmal te doo ko dégg yow te mooy keroog ñu ne faatu na anam teg leen ko ci kanamu jumaa ji ñu jullee ko ne asalaamaaleykum doo ko dégg jullee boobu noonu fekkee nga ko waaye yëgoo ci ba mu paree mu ne ko kon de ñun diggante depuis fanweeri at jullee ko kon nañ dem fii fanweeri at jullee kon ku mel nii booy dugg ci jumaa kon juma mérité na te yàlla laa yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum yàlla xoolul jumaa ji jëmm jafa dugg walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum sa xol ba xol bi dugg si ci jumaa ji man nga nax ñépp ba mu def yàlla yaa ngi dugg si ci jumaa ji am na yu sew yu nekk ci yow am na rëy bu nekk ci yow am na loo xamante ne yéenewuloo ko koo xamee yàlla bind na ko yàlla xam na gis nga ni ngi koy xamé ku tilim bu dugg si ni ngay jëppee bëggoo mu dugg sa nek la nga soxla moy mu genn saxal xol bu tilee boo dugg ci juma non la la malaika di téro ku santé la xam ki moy ku santé yalla bu ñu santé amma al ikhwa al alam nuhanniukum tahniatal akh li akhi ونبشركم بما بشركم الله به جل جلاله نبشركم لأن الله تبارك وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد فكل ما نسبه الله تعالى لنفسه لذاته فالموعود منه الجنة لقوله في حديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به وأقل ما يجزي الله به عبده الجنة وأكبر ما يجزي به عبده رضوان من الله ورضوان من الله أكبر نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنكم لأنه تعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه أما التهنئة فأنتم تستحقون ذلك فكلنا من آدم ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم ليس هناك عيب في الألوان وليس هناك أيضا فضل في الألوان وفي الحديث لا فضل لعربي على عجمين إلا بالتقوى إذا من آيات الله أن يكون هذا أبيض عربي أو سواه ويكون هذا إلى جنس الزنج أحيانا يكون سريريا أو ولفيا أو إلى اللغات الأخرى إلى القبائل التي هي كثيرة في السنة وخاصة في منطقتنا وتحملتم كل العاب للوصول إلى هنا فلذلك نهنئكم ونبشركم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم صالح أعمالكم أما بالنسبة للأخ أرفع أرفع فربنا تبارك وتعالى أهداه إلى عمله وكلنا نشهد له لأنه ليست لنا ليست لنا علاقات معه إلا في الله ولم يكن يتعامل معنا إلا في الله صلة الرحم حب العلم نشر عبادة الله تبارك وتعالى فبالتالي نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يتغمده في واسع رحمته والأخ موجود أستاذ ستيف فهو أيضا ما شاء الله كل ما نحتاج إليه فيما يتعلق فيما يصلح ديننا ودنيانا من الإخوة من القبائل كلها خاصة السيرين أن تستمروا معهم على نفس المنهج فهو امين ان شاء الله ورجل صادق ملني وقت بيجي هنا تك تك تك تن مودس لودس ايوكو ايوكو ايوكو السلام عليكم دانيو زيار نيب نوي نيب ا أه، سيرن شيخ ديف دي بول ني واخ واي لي نيو غيس موي جارلون صاح واخ نخ لي جارا واخ واخو نا بي نوبي ay ñaq dërëm dërëm dërëm dërëm ñaar dërëm mu tabax jumaa ji xam-xam kese tabaxu ko wala déet xam-xam kese taxaw tabaxu ko waaye alal kese tabaxu ko waaye rijalun sadaqu ma ahadullah alayh fa man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila kon jeex na li ci des nag mooy ñun ñëpp jumaa bi lan lay wax ñun lan la ñuy wax al ixwa ñi nga xam ne ñoom ñëw jóge fu sori ci biir Qatar bilaadul arab ba ñëw agsi ñoom lan lañ wax lan la leen jumaa ji wax mbooloo mi fi nekk ñëpp cheikh al islam alhaaji Ousmane maam Ansu Ñang yàlla fi yàgg te wér moom lan la wax ak ñun lan la wax ak jumaa ji lan la ñu wax ak moom imaamul akbar mu ngi toog ak naayibam lan la wax ak ñun lan la wax ak jumaa ji jumaa ji lan la wax ak ñoom xam nga lan la wax inna salata tanha an ilfahshai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tasnaun kon jumaa ji pare na buñ ko tëjoon nii du ma sa ubbeeku buñ jógul jël caabi dugg ci biir ubbi ko du ubbeeku kon jumaa nekkut ñi nga xam ne ñoo ko tabax ba pare buñ ñibbi woon nii ubbi wuñ ko du ma sa ubbeeku kon ñoom nekkatuñu fii buñ dugul julli ci jumaa ji amaluñu njëriñ jëriñu ko jëriñu ñu kon ana jumaa ji nekku kon ana ñun nekkuñu xam nga lan moo nekk ci waxu sëriñ bi cheikh al islam alaaji Ousmane maam Ansou Niang li nga xam ne moom la wax ak njaboot li nga xam ne moom la wax ak nit ñi mooy lan ñun ñëpp nañ taxaw ci ñetti yëf yi nga xam ne moom la tàmbale léppam mooy rafet na ak jag na ak baax na bu nekkee ci yii yaa ngi ci inna salaata tanha an ilfahsha wal munkar su fekkee ne nekkoo ci inna salaata tanha an ilfahsha wal munkar kon yow doo rafetal doo jagal doo baaxal déedéet kon nag ñu war a waxante dëgg nag jumaa ji noppi na pare na kon pour lan la gis nga ñii fii nekk ñëpp ñi ñàkkee ngant ba ñëw toog fii kenn amul ngant ba ñëw toog fii bés boo xamante ne julli tusbaar takkusaan jot na te ñëwuñu amuñu ngant moo xam nga dëkk ci dëkk bi moo xam nga nekk ci beneen dëkk ak fu mën a nekk amuloo ngant moo tax bu ñuy commencé julli dañuy woote julli ni ñuy wootee julli allahu akbar dañuy nodd allahu akbar maanaam moo gën a màgg lépp ci loole allahu akbar yàlla gën a màgg lii nga ne lii ngay def amuloo ngant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 loolu nag képp ku munta yëngal loolu dootu la yëngal ci li nga ne bi mënoo julli ji bokkatuloo ci jullit ñi lu tax ndax am na ngant wala amuloo ngant mu lay atte kon nag ñii def na li ñu def ba noppi wax na li ñu wax ba noppi jumaa ji dañ ko war a ubbi ñu dugg jullee ko bu ñu xasee jullee tey ji nag am na beneen bu fi nekkoon jumaa jooju nag lan la wax ak ñun ku si daan julli ku si daawul julli jumaa ji nag dem na ñëwaat na nag ndax yow da nga ci julli wala doo ci julli kon nag wax ji wax ji yépp mooy kenn ku ci ne gis nga lu wóor gis nga lu leer ne yoonu yàlla wala nii bu yàlla sanku nen lu dul dugg dem julli ko kon nag ci kaw loola sëriñ bi ni mu doon wax léegi ci Cheikh Isamara Diop la maam Ansuña li mu wax ak li nga xam ne moom la chérif yi wax ak li nga xam ne moom ñu baax nii loolu la ñuy wax ak ñi ànd ak ñoom li ñuy wax mooy xam nga lan la nañu jaamu yàlla wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqiin dama nga te wa maa umiru illa li ya'budu allah muxlisin lahu diin xunafaa wa yuqimu as-salaa wa yu'tu az-zakaa wa daalika diinul qayyim kon néeg bii nay gën a set suñu néeg yi néeg bii na gën a sell suñu néeg yi néeg bi nañ ko gën a bëgg suñu néeg yi néeg bi nañ ko gën a toppatoo suñuy néeg yi suñuy néeg yi su fekkee ne gën na rafet néeg bii kon ne ko tudd. Cheikh Islam am ansu ne nee na fekk fu mu tabax juma wala mu bokk ca tabax ba day wax ne kër yi ko wër su fekkee ne ñoo dàq juma ji kon nekkuluñ ci dëgg néegu yàlla na këru yàlla la ñoo sa bas dàq ko kon pour lan la kon nag li mu laaj ci matériel bariwul te li te li mu laaj ci mbir lool bari lool te liñ ci def bari lool kon nañ ci defaroo parlement nañ muslimin boo dégg assemblée nationale bu jullit ñi mooy juma kon nag nañ ci taxaw nañ ko taxaw nañ ko sellal nañ ko baaxal la des na ci jikko yi nag su jikko yi rafetul buñ duggee fii du rafet kon buñ duggee fii nañ ko rafetal booy génn di dem acca kon nag mbir ma mat na jeex seen wàll seen jaan wàcc na ñun ñoo ci des wala boog yéen ñi fii nekk yéen a fi des kon imaam ñu ngi lay ñaanal imaam ratib ak naayibam ñu leen di ñaanal wér ak gudd fan ñu leen di ñaanal ngeen mën a yor jullit ñi waaye ngeen mën a jàppale jullit ñi ci li nga xam ne moom la leen yàlla sant mu nekk yéen boo xam ne yéen bu diis la boo xam ne bes bu ngeen génnee ci kaw suuf dañ leen suul ci biir suuf bu ngeen demee responsabilité masculien boobu yàlla dina leen ko laaj yenn yàlla woyofal loola bay ngeen mën a tontu lan leen di laaj juróom wala ëllëg ñun ñi nga xam ne ñoo nekk seen ginnaaw nag acc na imam balaa jul dina wax ne saw waxtadilu saw sufufakum wala taxtalifu gis nga loolu dañ koy wax ci jumaa ji waaye gis nga ci biti la dàqee buñ ko mënee ci biti buñ ñëwee ñu def ko waaye buñ ñu déggoowul bëggante wuñu kenn ku ci nekk di saaga sa morom wala ku nekk xeeb sa morom wala ku ci nekk di wuñu sa morom buñ duggee fi buñ la ne kaay taxaw fi da ngay bañ kon nag ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñu ñu fa nekkal gouvernement bi di leen di ñaanal jàmm ak sutura ak xiiwal ak naataay o fa wane seeree fay sa dakilo fay ndef wiin fay mbuhir fay siktir o kiino kiin o xac hoof i nof o xacco o yoonof i nof o anga weyoñowa tokillan e comme hanagar o hon o ufel kamillan e comme no ufke kamillan hano lamtel ke jalle howna tokillan ke fiyona tokillan a hennange walla a mosange rokoma toki kamillan to henne to sottiye hoy hati ge jalle howna tokillan tokillan te hennane howna tenna musan ka ke lamit ke kamillan ke kamillanga fiya o kinoki o andangiren o laamit we andonaga fasalu ahla dicri in kuntum la talamun o andange lamti we anna hanan layom e comme imberan na mboy o yengo feran na mboy e comme ɗikander na mboy e comme walla o yengo ɗikander walla e comme nder kander na mboy o layangi ten hano anga wofay hoof ke moƴƴanawo ten pesunneleyat o o yaro o jo teggin o tey o buharo o rakararo to ufoy hohof o hacci hohofin nof o hacco kenofin nof o hacco rohoyaliya ɗum nof o fiyanan adna yof hana fel lakiref hana fel kono yasmoro fene en jaam ino fof a fene en sutora fene en taranga surne tan ten garna a garano surne aa gadde pour fallay gar pour madid ke anoga tan ndefo fof nito buyitna sate fane a refo simolako fa a refo simolako nun يوم رفا سيما لكم نون فبوده بتهانورا فانا سادة فنك فالين بجي فالاج ما انسون يغن سادة فنك فتا هول فك وكينا كنت كي بوهنو نو سادة فنك تبت بوهنو كي بوهنو نو نيتم كنت بوهنو توكو دوه كي بوهنو نو سرنة نسرما كنت بوهنو نو جوهان قل فاين دفلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون توكو لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نسائي عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فاسقون مجرمون كنو سلاك نوا با كنوكي وأني هو ميغا فهم نا بارتي فنيغا فهم نا تاريكا فنيغا فهم جهيا أنجري تاريكا نو بيشي نو مانرو وحالي ما آها جبيم تم هدرو فتنمي gis na nga parti le politique tellement tam hattano ah ah tam hatam fajit na minami kon kay in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allah war rasul faqad faza fawzan 'azima inna aradna al amana ala as samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فكس لك إنه فوق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 وعلى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بارك آمين واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما آمين يا رب اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب كن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واتمس على وجوه أعضائنا فلا يستطيعون المدى ولا مجيء إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تضع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا طينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون آمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين nekk bi pare na alhamdulillah papa Ousmane Diouf indi jox ñu ko. incha allahu allahu rabbi. anin cotirin. dinañ ko joxante. nite war a cotirin. niñ ko war a joxante. incha allahu rabbi. incha allahu rabbi. o mu yëg ci si imam. te an ne gaa. mu ne nii ne. borom bi mu ne nga nekk imam. mu ne daxul nga génn ref imam mën ne nga nekk imam taxaw bu paden halal nekk bu tawul nga uppuleen alal ref imam nga nekk imam taxaw o huppadeno fof tawul nga uppuleen mbokk a tokka ref mu ne yéen la banaro hay yoɓɗiɗna ba nga xam bi yàlla yëkkati a cooɗiɗo ko ten mu ñëw jox la ko o feet koy mu ne ëllëg nag kono lancelo ten de yàlla dina la ko laaj sappeke mu ne sappe yi ano lancelo dinañ la laaj sa pay ak keña ken jullit ke mu ne xolu jullit ñi a refanga to mu ne su fekkeen a jehanade ndok tiiɗa dafa am nu ñuy dugusee to wo o yehin te yow nga yëg ko o hemmaɗino te defaruloo o feet ëllëg sa digganteeg borom bi la subhanahu dafay yelefu de mu ne nekkul yéen bu yéen bu oyof de medu ref mu ne yéen bu diis la laam refatee andeerof mu ne ndaxte nekkul sa diggante fii wii ne ak diggan dig sa digganteeg nit ñi andeerof a ref sa diggante la ak borom bi subhaanahu wa taala mu ne te kenn ku ne xam nga sa borom sa bopp to telema mu ne mu wax ne in ahsantum in ahsantum ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum wa in asatum falaha kono hay mu ne kon mbir maa ngi noonu alhamdulillah alhamdulillah ke bisidna inme li ñu fi indi loolu la karamo abdoulaye doon wax sànq loolu la karamo moustapha doon wax sànq o kino kin kam den mu ne kenn ku ne ci ñoom iliman refo mu ne iliman nga o hay kenene mu ne Karama Moustapha mi ilimaan a def mu ne ilimaan la juma fana Dakar ci juma bi nekk ci liberté si station Abdou Aziz Alaaji Alaaji Abdoulaye Karama Abdoulaye mii to ilimaan a def mu ne ilimaan la maa te ref na ci Daaru Sayid fale ci kër Seet fa Sirmang ak Sirmang yëpp ni fa nekke moom mii jiitee ma jiitey moom dafay jiite na Sirmang ci Sirmang ci jumaa bu mag imbaas kaxa fop koy ñu bàyyi loolu lépp ngir ki andoona ga ngir li nga xamante ne tadu boo loolu moo taxoon Jibril a buure fo kiin Jibril bugg a nekk doomi aadama a jaltin mu bug koo liggéeyee ba mun a am tiyaabu boobale loolu rek mu ñu fi indi mu ne lu dul loolu nag wala lépp lu nit di foog loolu indiwuñu ci dëkk bi fii ci Joxaan lu ñu fi indi lu moo di ne borom bi subhanahu wa taala moom moo ju sant ne nañ nañ rafetal te buñ yàq nañ muñ imbuha te buñ bi bu ñuy al تلم قا مو وحننك والقادمين الغيظ والقادمين الغيظ والعافين عن والعافين عن الناس والله والله يحب يحب المحسنين, المحسنين. imbuhum bo mu ne ñu bëgg bokk wi andoona ga ñi nga xamante yuhibbuhumullah yuhibbuhumullah mbuhum bo ñu bëgg bokk nag as-sabirin as-sabirin lam tan إن الله مع الصابرين إنا إنا لننصرن لننصرن المجاهدين المجاهدين منكم منكم ñu bëgg a bokk nag ñu góorgóorlu ci yàlla ci subhana ngi ngir suñ dajee ko seen borom ñu bëgg a mën a jot eh, war a tiyaabu ci borom bi ma ada dalik ma ada dalik mu ne loolu mosuñoo yëkkati fenn mosuñoo yóbbu fenn itam mu ne taxul ñu dara itam incha allahu rabbi kon caabi yaa ngi ni incha allah dinañ ko joxante ان شاء الله ربي بسم الله مقام كرمو عبد الله نيان ان شاء الله ان شاء الله الله اكبر الله اكبر Thank you. Ah, fue el golero. Bawa itu angkat. Bawa itu angkat sekali. Mungkin begini, begini. Banyak. hange bajanjudi fofanto ka tatanaka ye amajatigite yi mafunegete kuya amajatinoni sana yaleke brantu kidamoy Akbar Allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة وتركهم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيع عنها إلا لا يذيع عنها إلا هلكة أما عباد إن أسرف البقاء على زهر الأرض هي المساجد لأنها بيوت الله عز وجل مصداقا لما قاله عمر بن ميمون الأودي أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون إن بيوت الله إن المساجد بيوت الله وإنه حق على الله أن يكرم من ذلك فيها وأخذ القرآن الكريم فضل المساجد بنسبتها إلى الله عز وجل وذلك في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ولذلك كانت العناية بالمساجد عمارة وبناء وصلاة وذكرا لله عز وجل أمارة على الإيمان وسبيلا إلى الهداية يقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ويوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إخوة الإيمان حين هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وشرع في وادي الأسس الراسعة لإقامة الدولة الإسلامية العظيمة كان بناء المسجد في مقدمة تلك الأسس وبهذا أصبح المسجد محور حياة الدولة الإسلامية وشر قوتها فهو أول مدرسة في الإسلام مدرسة في الإسلام تبني الأجيال وتصنع الأبطال يقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين فالمجتمع الإسلامي هو مجتمع النظافة والطهارة ولا تكتسب هاتين الصفتين إلا من خلال تربية في المسجد إلا إلا من خلال تربية في المساجد وهذه الآية الكريمة تصير إلى طهارة حسية ومعنوية وحب النفس ويصبح محبا للنفس يسعى في الخير لعباد الله جميعا ولهذا أسأل الله تبارك وتعالى على رواد المساجد فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالعدو والأسد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب عباد الله فقد كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا للفتوى وكثيرا ما كان يأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يستفتونه يستفتونه في شؤون دينه ودنيا فيفتيهم فيفتيهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي وفود يلقى الوفود والسفراء في المسجد ومن المسجد كانت تتكلق العذوات تنطلق العذوات والعداوات المجاهدين في سبيل الله وإليه تعود وبعد أداء مهمتها ولذا حالفها نصر الله وتأييده وقد كان المسجد دارا للقضاء وفصل بين متخاصمين حيث يعمل فيه كل إنسان على نفسه ويتبين على أخذ حقه يقول الله تعالى وهل أتاك حديث أتاك نبأ الخصم إذ تساوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان مع بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدنا إلى صراط إلى إلى طريق إلى سواء صراط إخوة الإيمان فالمسجد هذا هو دور هذه هي دوره وقد كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء من بعده يقضون بين الناس في المسجد وقد كان المسجد دارا للتوثيق عقود الزواج لما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وقد ورد ذلك أن سعد بن معاذ لما أصيب يوم حندق ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة من في المسجد ليعاوده في قريبه والمسجد كان ولا يزال أفضل مكان للتشاور بين المسلمين في كل سال من سنون دينهم ومعيشتهم لأن المسلم في المسجد يكون بعيدا عن الهوى النفسي ونزعات الشيطان أولى الإسلام بناء المساجد أهمية كبيرة وأعطى المسجد مكانة مرموقة مميزة فهو المكان الذي انطلق منه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الإسلام الذي عم نوره وفضله أرجاء الأرض ليتمتع المجتمع المسلم بالنهدة وتتوّل في جميع جوانبه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 الله أكبر الله أكبر سمي الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله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 ايوه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم رب حببنا الإيمان وزينه من قلوبنا وضلل الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من القانتين واجعلنا من الحافظين واجعلنا من التائبين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اغفر لنا ذنوبنا وعافنا واعف عنا ولا تعافنا بمثلنا سلام قولا من رب سلام على موسى وهارون سلام على ال ياسين سلام عليكم تكفر فادخلوها خالدين سلام حتى مطلع الفجر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا اللهم فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فانك يا مولانا تقضي ولا يقضى عليك انه لا يجن من واليك ولا يعز من عاديت تبارك اللهم ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت نستغفرك اللهم ونتوب إليك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا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 كل الكافرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا اتم لنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اغفر وارحم وعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الله الغيوب اللهم بلغ صواب ما خلقناه ونور ما تركنا إلى روح سيدنا ونبينا وعزيزنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى وحي جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى وحي آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشاهدنا وأصدقائنا وإلى روح عبدك العرف الجوب اللهم اغفر له واجبره وانصره وعافه وأكرم نزله ونقيه من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاة تعرفنا بها وترسلنا بها إياه وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأهوال وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات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 por Venga a ponerse ubicado, inshallah. Salam Thank you. صل على محمد رسول الله وصحبه كوامل صل على محمد رسول علي وصحبه كوامل على محمد رسول وعلي وصحبه كوامل صل على محمد على محمد رسولي وآله وسلم على محمد رسولي وآله وصحبه الكاملين صلي على محمد رسوله وآله وصحبه الكاملين على محمد وآله وصحبه الكوامل صل على محمد رسول وآله وصحبه الكوامل صل على محمد رسول وعلى وصحبه الكوامل صل على محمد رسول وآله وصحبه الكوامل صل على محمد رسول وآله وصحبه الكوامل رسولي صلي على محمد رسول وآله وصحبه كوامله صلي على محمد رسولي وآله وصحبه الكوامل صلي على محمد رسولي وآله وصحبه

Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.